Senclic yéen ñi abonné gul aboni leen gaaw activé cloche notification bi ngir ngeen di am lépp lu fi bàyyi ko jàngin jëf dafa jot mais démb fii laa leen gis ñoom ñëpp ñu taxaw ma xëy tey gisuma leen lan moo ko waral démb gis fii laa leen fekk tey ma ñëw gisuma leen may wax sama xarit bu dof naan ma corona luy corona may wax mu naan ma boo génnee boo duggee da war a raxasu man fan laa mu naan ma da ngay sama kanam fan laa sëkkatee si kanamam te lan mooy sax man ma war a sëkkat man ma bu sëkkat waaye loolu du yoon kii dama koy bàyyi kii bàyyi naa ko bàyyi naa ko laa doon bàyyi naa ko munoo wax ba du ko bàyyi kii bàyyi naa ko waaye heure bi jot na te daaw mu fekk fii kon foog ma dem damay lekk lekk ma kon tey damaa war a lekk lekk la su ma lekkee tey après barki démb ma lekkaat dinaa lekkaat loo may ñaane

mais yéen booy bàyyi ngeen dafa dëgër non dëkk bi dafa dëgër yéen a ngi ni bu leen ñëwee maa leen fii sax yéen yéen bu leen ñëwee maa leen ci rabal maaleykum salaam waaw joxe la ko waaw da ngay teew foo toll ni keneen bi maa ngi ci lool ni hmm. Hmm. moom loolu mi sax dafa yàgg hmm. man sama loolu day jël temps day ñor ataay bu ñorul da leen jox da leen naan rek mais grand na am ça va ça va nag feebar bi doo ci wax yow feebar bi xaw na lëmbe dëkk bi de yéen a ngi sànq yéen a ngi am loolu wax waaw xaw na lëmbe dëkk bi nii nii situation bi instant dafa métti ne bu vingt jotee na nekk toog sa mhm. mais vingt bu jotee daf yi di réunion ci mbedd bi wax nii damay tiit sax su ma taxee suñu kaw terrasse dama xam ne ñoom comme bokkuñ ak yàlla mais li nga wax tamit dëgg la dafi ah, ñun askan bi ñun ñoo leen war a mun a jàppale surtout état bi waru leen sax di leen seetaan mooy loolu de gis nga boo seetloo suñu maam yu njëkk yi dañ doon booloo di jàppalante seen biir mais léegi nii fi mu ne nii teem Sénégal moom ku nekk bokk sa bopp la ku nekk bopp sa bopp la kii aw nii kii aw mais dañoo waroon booloo jàppaloo comme ni suñu maam yi ñu njëkk yi dañ doon ko daan defee loolu moom dëgg la moom doon benn déglu naa leen quoi déglu naa bon jotaay bi am na solo parce que instant bi ak pandémie bii nii da ciy baax quoi am na la ngay jot a wax sànq mooy Euh, prise en charge dof yi pendant après vingt heures dañoo seetlu leen quoi ñëpp ñu ngi seen kër mais ñoom là ñu ngi fi te alors que ñoom dañoo bokk société bi bon la société est en train de vivre en marge de parce que instant bi nii ñoom dañoo jàpp ni ñoom bokkuñu ci quoi alors que même kii bu ñu wax nii affaire aide alimentaire bi ñoom dañ ci war a bokk prise en charge dañ ci war a bokk parce que ñi lañ bokk à tout moment ñoom ni ñuy ni ñuy doxee di dem di ñëw noonu lañ mën a jàllalee kii bi quoi feebar bi moo c'est très important quoi li ngeen jot a wax nii waaw war na ci mën a xalaat ba état war na ci mën a xoolaat a jël ci ay mesures quoi surtout surtout parce que société bi lañ bokk quoi société bi certes benn am ki anomalie si ñun quoi mais du seen coobare quoi bu ñu yoon ñu delloo leen ci société bi bokk nañ ci trop vraiment mooy yoon ñun dañ ci def ñun luñ mën. ah waaw waaw ngeen jàllale rek loolu mu teg ngeen jàllale ko parce que bu dul loolu nekk ni moom après ñun mun nañ nekk ci biir mais ñoom bu ñu circulé tamit du jëriñ dara quoi. waaw vraiment effort yooyu noonu après dafay fay. waaw fu ne la ñuy dugg mhm. ñu ngi dem feneen ailleurs ak waaw parce qu'ils sont en léegi da gis ku ñëw taxaw wax ak yow te doo xam fan la ko mën a jëlee mooy loolu tamit waaw feeru moom instant yi dama ne. ñu mën a jàllale rek tamit ñu jàllale ko. waaw daal daf daal war nañu mën a jàppale nag. yoonu ba toog nag tamit ah, di jël kaas yi nii di ko benn benn nii naan li yëpp koy tere ngeen kii di naan di sa morom nii tamit mais waxuma loolu yëpp mais yëg ngeen benn affaire dof bi nekk si koñ bi nii. maa ah. xam ngeen li muy hmm? bañ. li feebar bi di bañ lay bañ ay sëqët jóg bi daal loolu yëpp la koy bay man nag maa ngi nit ñëw dem awma toogaay fii nii sama balaa ma fekk xam nga dafa bëri te yow dama la soxla sax kañ dem waaw naa di nga yàq suñu jotaay si xel ni ma si café gi gaaw waaye ma dem dem fan ah, xarit yi nag ah nijaay moom tey moom am demoo dama lay xelil café toogal fii tey moom maa dem yee nijaay xaaral rek yow gaawal si café gi ma dem te tey moom sa client yi dañoo nijaay xam nga lu tax client yi ñëwul nijaay kenn du naane nii nijaay lii la la nii. ala client yi man damaa gisul fii kenn laa la wax. nijaay dof bi ci koñ bi nijaay dof bi dàq na samay kiliyaan yëpp amatuma benn client. dof par benn benn la ñu ñëw. nijaay tey moom doo dem da ngay toog fii. parce que xam naa ne léegi mu ñëw dafa xam heure. baax nga ma nag. képp kuy def taf lu moom boo jàkkaarloog man xam ne mbër piir nga jàkkaarloo ah, taf yi ma mësa tër yëpp nii ñi laa doon mbaaxu nii ah maa la wax lii yaay kooku dafa am doole de doole weesuwul li ma am teg maa xeet ah waaw baax na na fi ñëw baax na yow di nga tax sama nu ma dem fenn xaaral ma wan la ah, baax na daal jaay baax na daal xaama saw ñëwaat foo yëpp damay tuur ndox maa ngi ñëw ah, waaw baax na maa ngi lay xaar. salaamaaleykum. maaleykum salaam. ndékki looy jënd. nga xaar ma gaawantu wallahi balaa muy ñëw. moom moom dafa daf moom ku ñëw. sama client yëpp la dàkk. ku ko gis daal di dem. waaye doom mun naa laajte leen. Hmm. waaye yow dof bi fan la dëkk. dof bi fii laa koy gis. fan. si ginnaaw mat ah, en tout cas dofee na daal. koo xam ne doore rek ah man de damaa tiit sax sama kiliyaan yëpp dàq na leen ku ñëw bu jàkkaarloog moom rek daal di dem ndax dofaay am doom merci. merci waa kay jërëjëf. kii man damaa xamul ci fu mu dëkk. samay na wala rek lii li ma naroon jaay yëpp xool ni depuis suba ba tey wala rek lii dof boo xamante nekk ci koñ bi di lëmbee nit ñi rek ah. man de damaa jóom mi sax man ah yal lii. waa su ma ko jaayul suba moom nan laay def ba ba demaat marché. yàlla baax na man moom damay ñaan yàlla rek yàlla bu mu fi ñëwaat yàlla rek bu mu fi ñëwaat yàlla bu mu fi ñëwaat man kii. Sara. man de ñëwati na. maaleykum salaam. yow de yaa nu yor dof moo ma fay fayuma kenn loo bëgg lan nga bëgg fii firit firit firit jeex na de xaaral ma jox la nambe jaral na ma yow daal nanga fi jógee rek man tof nga rek ah. jërëjëf xamoo dëkk bi daa am corona sama loxo bu ci lim bi. ah yow mii a defaay bi war nañ ko xoolaat de. même aussi kay. ndaw ah, woy woy sama ndey. nijaay nijaay génnal waaye yow tey daa lay wan waxoon naa la tey daa lay wan dorof man ma cee ne comprendre loo sax yow bu nag fay nga am ay rab nga wax ñu waaye kii moom day bëgg a def wala moom ñebe gee koy def loo waaye noppi waaye yow corona corona corona corona lay def ah yow laay wër yow laay wër corona yow laay wër fan yëpp maa la seet yow yaa ngi fi toog ah corona ah, corona ah. ah, oh, fii corona daf ma rey. naar awa naar awa naar man man man mënumaa boole ñaar ñii saa yu ma xëyee maa ngi xalaat fu ñu war a mën a jëlee dund. commencé ti nga sa wax ju bari. dinaa wax ju bari commencé ti manam samay dëgg moom su ma leen ko waxee ngeen ne damaa bari wax. nga bari wax naar kër gi man bu ma génnee yaa fi des awa naar te jamono ji dañoo toll si kilifa gune toog sa kër aar sa njaboot donte man mënumaa toog aw naar yow yaa ngi toog kii moom waxaalewu ma ko ndax lépp li ma li ma li ma bëgg mu ngi ma koy defal waaye sa doom ju góor ji mëtsim mëtsim yendatulatu fanaa dul da xam li ma bëgg ni jaay dama bëgg nga yàbbil ma sama doom ji yow lan la yow sonal nga ko de sa doom ji yendalatul fanaanatul ak feebar bi ñuy wax si dëkk bi fu ne mu teg fa ku ne mu fat dugal ci biir awanaar lool ci lan la bokk lu ma ci gën a métti mooy ay 4 heures du matin 3 heures du matin laa koy dégg muy kërën kërën ci buntu kër gi loolu aayu ni jaay moom kër xale tamit la nekkoon de awan fu mu nekk nii kër ku dañ ne ku nekk na nga toog sa kër lan lay jéggaani daa amul kër. daa amul kër. bañ nga ko def foofu moom na nga cee wax ak moom. billahi bis moo ko fekkatee ci biir kër gi mu toog naan day garam place. bëgg naa nag nga xoolal ma fii sa numéro bàyyi baax la waaw ma dëgg ma gis nga yow kii yaa bu ñëwee mu ne neb yaa xaw ma day saan kattali naa xaw ma kooku nga war a waxal sama doom bu góor bi da waaw waaw wax nga dëgg nag ndax kattali naa googee war nañ cee wax xadi man sa baay jàngu sa ndey waxi noppi jàngut bu buñ jekkee jékki ñu bindal ñu ab bataaxal ku koy liir xadi xadi ku koy liir ah, ah xadi xadi góorgóorlu waay aw naar gis nga man waxi dof yooyu dama eh, dama cee néewul man damay wax dag may waxu nit dof bi ñu muy dóor ak ñoom ñoom amul mbokk waaw sa baay laa wax de waaw moom dama ko war a daa war a am fu ñu war a dem xoolal ma fii sa numéro sa sa baay ndax fa ñëpp day nekk grand place bi isóoli te man ñoom bëgguñu kenn waa ñuy. jàngoro dégg xool xool li may waxati xool li may waxati. c'est ça ba Babacar. <laughs> yow it. waaw ah, nijaay tamit dóor yi nag. soxna wa ah. ah maa lay ziar de. waaw gis nga ko de naaj bu tàng rek ak ngelaw bu nekk si dëkk bi. Ah, naka mu. borom ceeb yi neex yaa ngi de man li ma ko ma bëgg la yow. <laughs> billaay wallaay tafa du la takkal. ñaar du la takkal dara yow yow moom loolu xam naa ko boo tuddee borom ceeb bi loolu xam naa ko wax borom dépasse bu doy bi danga koo war a wax yooyu yooyu amul solo danga koo war a wax amul solo waaw yooyu amul solo baax na xiif naa lool nag xiif naa lool waaw jugaleew ànd ak sa ndey yooyu amul solo xadi del suivre sa ndey xadi del suivre sa ndey Babacar ñëwal nii ma mën a wax ak ci saabu. Baba Babacar Babacar Babacar Babacar. sëñ Tafa. sonn Babacar gis nga jamono jii. sonn naa trop mag gu ne yaay sa magum bopp. Babacar yaay sonn naa sëñ Tafa. Babacar nga nekkee itam daa jaaduwul. ah sonn na ah. nekk si mbedd mi di sóole ko sëkkat nii. te yaa ngi dégg lu ñuy wax ci feebar bi. demul guddee nelaw ma. demul guddee man nag tussooli tussooli ba fajar laa la. waaye doo xam yow ne doo nelaw. ci saabu. bilaay walaay xam nga nan la ñuy rek ma jàpp suñu xam nga ci sóoli gii moo tax ma wàll nañu na nga ñëw ñu ànd dem ci gisee waaw dem googu nag man dama ci am gàllankoor waaw lu waroon ñaaw suñu waaw sama locataire yi xam nga ne weer yi fu mu nekk nii teg na ñeenti fan waaw loolu dëgg la weer moom dee la boobu ku mën a fayal mu naan ma père jàppale ñoo dëkk bi fan yi marché yeeg kii ñu affaire yooyu lenn nag laa mënul man ci ci laay dundal sama doom sama njaboot ci laa ñuy dundal su ma amee soxla si laa ko ñuy faj ba tax na loolu noonu mhm. moom laa bëgg lijjanti ñi mhm. fu mu nekk nii dama lay bàyyi yow kese mhm. nga dem ca gisee sama bomu bopp nga yaa ma gën a xam ne la jot ah sëñ Tafa daal man sama bi dama bëggoon mën a yow ñu ànd tànk ak tànk ne yow ma si gisee man loolu laa bëggoon quoi waaw man feebaru ma nag Babacar Babacar yooyu yaa feebar Babacar waaw ana ne ko sama xarit la sëñ Tafa waaw xarit ba ci war naa xool say mbir Babacar eh, wuy ma gisee waxoon naa ko ba noppi uh-huh. lu ma mën daal def naa ko bu yeboo na ma jug léegi dem ci moom mu xool la waaw ci saar Babacar jugal nag Babacar ah, kon sëñ Sefa yoon bi waaw baax na jërëjëf maa ngi si yoon bi baax na demal rek yow hmm. na nga dem mu xool la nag am xool la ci saar ba Babacar feebar rek ah feebar da ngay faju nag boo feebaree da ngay faju Babacar ah ngëj ti sa naa lool waaw daa mel ni poste santé bi yes yes naa si de daa mel ni gis la de waaw xaa ma si biir ti saw eh corona dér du corona de corona la billaay walaay corona billaay walaay corona billaay walaay corona la def billaay walaay corona corona ma gis billaay du corona biir bu taw moo ma jàpp biir bu taw moo ma jàpp <laughs> biir bu taw la billaay walaay corona billaay walaay corona wax naa leen corona bu ma gis fii ma rey fii amul sëqat amul tisool ñëpp nii rek aana aana man am yoo xam ne xajuma ci aana mag laa aana bu ñu joxantee rendez-vous ñëwal aana aana fii nga ma si ngelaw li ma toori di naan li. Aliou boo xëyee noonu. temps bi xam nga koñ bi nu mu demee rek. ah koñ bul ma ko wax. ah na nu mu demee kat. nan koñ bi demee. aljan saa dañu am gan bu bees. ganub la. dox boo xamante ne. coronavirus lay bañ a dégg. te da cee bon lu ci bokkul nag muy dóore. ana na toll nii yëkki nii. ana man yooyu lijjantiwu ma ko. ana man sama palmarès dafa rafet. ay na yaay waxtu loolu kii day dóore da am dof la de. waaye yow ana ana ana man cinquième eh. dan cinquième dan amul lenn lu may xalaat juróom fukki nit laa war a xeexal nga naan ma ay dof. nijaay man nag ma fekk fa nga ma daan fekk baax na nag bul lijjanti dof bul sóor dof dox moom bis ma dajeek moom ci digg xaar yàlla bi na xam ne lépp dëgg la baax na tegal fii loxo gi baax na dama rek bu suba incha allah ah, bu ñemee dinañ daje man dañ maa yónni woon sax waaye xaama dem gaa balaa moo génn man yow laa doon seeti waaye man damay dellu ah. fu mu nekk nii damay dellu yow demal rek yow ah, baax na xoolal lii rek ah yii xeetu ans ah man di ma rey rek bi di nga ma rey man moom xam naa ne dinaa dee ci erreur. <laughs> waaw yow la. ah dañuy tere ku nuyoo. la moo tax nga bañ ku nuyoo. waaye corona wu la. dara di waxuma kay. waxuma de. booy. booy. <laughs> booy ngir yàlla teg